jërë ngeen jëf amee téléspectateur people 221 yaa ngi siiwul ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko saako ci yéen di ñaan euh, suñu réew mi yàlla na suñu borom doole jàmm di nuyu suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi. tey nag ma dalal suma benn frère mu di mbay Mbaye Kouthia Mbaye Kouthia kenn dootu ko présenté ci réew mi waaye Mbaye Kouthia gis nañ coow li nga xam ne am na digganteem ak Ouzin Keita ñaari fan yi am Ndiaye indi Diop. ah tungu ne nag du teew ñu nataal mbay ñu gis temps yi vraiment ngay def ay ay ay développement yu am solo ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. muy sa concept yi ngay liggéeyee. muy mm-hmm. TikTok bi concept yooyu noonu euh, naka nga ko ah, euh, bu njëkk ba guy gi nuyu naa xam nga Sénégal man kii laa créateur laa. Mm-hmm. man chaque jour du ma nelaw gisoo lu ma tuutee man su ma toogee rek maa ngi xalaat instant bii sedd yàlla instant bii euh, fi mu nekk nii. dajalewaat naa yeneen concept yoo xamante sax ñëwagul man créer su ma toogee damay créer waaw damay créer loo xamante ne euh, lii la ak lii ak lii ak pourquoi lii pourquoi lii pourquoi lii mm-hmm. man mm-hmm. ñu gis yi ni nga koy defee ñenn bari ci sénégalais yu si di ko xaw mm-hmm. yi koy def ay maanaam koy waxtaanee ba pare doo ko teg doo ko doo ko teg sur table. Ah, waaw ba gis yu bëri yoo xamante ne loolu lañ may wax même su ma rombee si mbedd bi léegi. yé ah dafa affaire dafa am succès léegi ba su ma rombee sax léegi xam nga nit ñi dañ may topp mbay filmer ma mbay filmer ma xam nga loolu euh, du ma waxtaan kenn parce que bu dama doon dama doon damay xalaat ne man lan moo tax pour site yi léegi am am ay ponkal sax problème la comprendre nga léegi man leen mais pourquoi euh, euh, gars yi duñu duñu duñu waxloo site duñu waxloo gars yi quoi da nga leen kii ku nekk kii ku nekk li léegi dama jëloon sama téléphone def ko sinap di leen di tooñ. yëkkati micro bi ku ma ku ma ku ma taseel tooñ la. Mhm. ne la guy gii mais mbaa ñu si am nga reetaan dugal ma ne ma xalaat ne lii pourquoi mënu ma ko porté léegi su ma ko dugalee da ngay gis retour yi may am naan la mbay nag pourtant yow yow affaire journaliste léegi mën ko ko ay nga de. pour affaire journaliste. Mhm. comprendre nga léegi nag ma ne lii kon xaaral ma xalaat si benn ma dem jëli daba di ko di ko mel ne daba sëy defal ko concept bi mu ma gis ma bëri ay partagé ma ne waaw. te mooy jour euh, mook euh, affaire boobu mook titi. Hmm. xaw ma euh, mook titi quoi. Hmm. ma man leen yaag titi est-ce que kii ngeen nekk yooyu affaire bi dox. Hmm. ma dem def defawaat Vienna bongo. affaire bi gën a am succès si compte bi ma ne waa. léegi si laa dem jëli tamit taala jasaaka affaire bi am ay partage mu ne ah ok kon affaire bi fii la. si bi ma ko kiiwee bi ma koy continuer ma si gis ay retour yu bëri. di am retour di am retour di am retour te fi ma ko commencé la. du ma ko jël ku ndaw quoi. waaw ñu mag ñi laay jël wax loo leen kaf kaf ak ñoom reetaan ak ñoom euh, wax euh, kii ba ñu ba nga xam ne dañ vide ma vidé leen quoi li nekk seen xol génn ku nekk dem. d' accord ñu gis si sax yaa ngi génne ay xale yu jigéen yoo xamante ni dañuy sonn. <laughs> waaw am di liggéey ndeysaan sonn nga leen di génne nit ñi di leen gis ba ñoom ñu ci am retour. waaw <laughs> xam nga lépp guy gi xam nga lépp lan moo tax euh, damay gis yenn saa yi xale jigéen dañuy sonn comprendre nga dañuy nekk ci ci di sonn yenn saa yi mooy dox guddi yi xam nga euh, xale jigéen dañuy fanaan si ay mbedd ak yooyu léegi ma ne leen pourquoi léegi ma leen jël su ma leen génnee dina am. koo xamante ne di leen gis yërëm leen. Mhm. jox leen ñii nañ leen jox cinquante mille ñii jox leen cent mille ñii jox leen concept boobu concept bu bees mhm. xale bu jigéen bu ma si gis bu si jël dangay may waat ne ma vraiment kontaan naa. kii may na ma lii kii may na ma lii kii may ma lii. jox naa lii sama yaay. Mhm. wut naa si leneen xam nga. sax ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp mais su ma leen jëlee su ma leen jëlee nii suñu vidéo suñu explosé dañ ciy am ouverture boo xamante ne. tal dañuy tal leen loo xamante ne dañuy jaay seen bopp. d'accord sa émission ak Ndiolé Tall boobu nag indi coow lu bari Mhm. ci réew mi. ah ñu wax jël la rek comme ça rek man noo ko sànni dama lay laaj daal li nekk si soo gisee Ndiolé li mu wax si émission sax moom la way waaw ah, parce que li mu wax répétition rek ak li mu li mu li mu woy fee mhm. rek ma sànni dugal dañ ay dañ koy waxtaanee rek soxlawu ma gaañ kenn mhm. waaw yenn saa nag nga gis mbay du journaliste kii mhm. critique yi bëri na trop mais du ma bàyyi waaw su critique yi bëree rek si laay gën a sawar quoi man ah. mais est-ce que liggéey yooyu amul amul ni nga koy defee noonu amul risque waaw am na day am risque kay waaw dafa am risque sama téléphone day sonné ka day sonné rek xam naan nga ku ñii di woote di saaga ñii di kii di vocal di saaga oh. xam nga mooy loolu quoi yenn saa yi da ragal sax léegi ku ma ne mbay damay ragal damay tiit problème bi loolu la quoi xam nga liggéey moom mooy loolu liggéey bi dafa xaw a métti quoi. ñu bari aussi tamit comme vidéo bi nga xam ne maa ngi mën naa comme vidéo Ameth bi mhm. ñu bari naan vidéo yi ñi ngay invité ñu ci bari da nga leen woo waxtaan ñoom ba xam fi ñu daje. Mhm. nga dem doog a mën a waxtaan ak. non non kenn du ma bilaay du woo kenn parce koo si woo day daw fi nekk nii soo gisee sax sama compte wàññi wa vidéo a damay xam fooy nekk Ameth Thiou fii la dëkk dama lay laajte koo xamante ne guy gi laay woo ne la ah comme ku ma ne Amadou man leen Amadou Fall fu mu dëkk nga tegtal ma mhm. ma dem xaar na fa man noonu laay def. Euh, def naa ko fi mu nekk nii fan yi Tické Laobé Tické Laobé da lay jël ne la dama naa la allo foo nekk yaa ngi si kii soo kelee doo da lay quoi. Mhm. xam nañ lii leen di xaar moo tax mais maa ngi bett leen nag du ñu daw looloo gën quoi. te mhm. ko si woo day du jël. mais su ma leen bettee nag force ñu wax man noonu laa ko kal quoi man du ma du ma si woo kenn. waaw si woo kenn vraiment. dañuy daje rek. d' accord kon xam naa ni damay pause foofu parce que tamit c' est normal ñu leeral. Mhm. ni ngay jëlee nit ñi ni ngay jëlee vidéo yi. Mhm. tamit mu ngi xaw a indi biir Sénégal. waaw c' est normal ñun di tay leeral. Mhm. doog a ñëw ci sa problème yàgg Ouzin Keita. xam naa dama dugg ci sa problème yàgg Ouzin Keita. dani. man du Mbengue Ndiaye bett la góor mais lan nga ko wax lan nga ko lan ko mais avant moom mu lay wax. nee na dañ ko dafa maa dañ maa bett dafa maa bett dañ maa bett ak góor ji ak jigéen ak góor waaw léegi man sama yaay sama yaay taxaw sama yaay kilifa yaay. mbay ibaadu la sama papa ibaadu lañ samay rakk ay ibaadu lañ comprendre nga ñoom ñëpp ay ibaadu lañ. waaw xam nga wala mhm. mu wax ma golo baax na mu wax ma dëmm baax na mu wax ma nooxoor baax na. Mhm. mu wax ma baax na. Mhm. lépp mu ne ma sax mbay góor jigéen ka sax dañ naan waxu comédien la. mais dañu ma bett nañ la ak góor. mbay mais lan nga wax ba mu wax la loolu. non non man waxuma ko dara waxuma ko daara oh yenn saa yi damay découragé sax. mais moom moo tax moo tax Ouzin ma dañ maa bett ak góor. ba ku nekk di ma woo. mais moom Sénégalais yëpp di ma woo naan ma est-ce que li li la Ouzin te Sénégalais yi wéruñu loo leen wax ñu gëm ko am na ñoo xam gëm nañ ko. mais léegi. am na ñu gëm ne li li wax dëgg. am na am na ñoo xam ne dañ ko gëm am na ñoo xam ne woo nañ ma message nañ ma ne ma mbay dëkk léegi nag yow xam ku ñuy dem. ku ñuy Ouzin ma tooñ. billaahi dafa ma tooñ dafa ma tooñ. mais ñu gis ñu gis Ouzin Keita bi muy def vidéo boobu noonu mu ci ànd ak ki nga xamante ni mooy Ndeye Gueye. man man man woo naa Ndeye Gueye woo naa ne ko Ouzin Keita na dindi vidéo parce que lim si wax dafa ëpp. il paraît que Ndeye que moo ko doon laaj. waaw ma ne ko Ndeye Gueye bëggatuma laa tooñ parce que dama laa tooñoon baalante nañ ak waroo woon dem dem di influencer Ouzin Keita pour muy def vidéo bi. bi ma ko woowee mu ne ma kon gis nga li mu tooñ li mu méttee. Mhm. ko man tooñoo mu teew ma ak mais Ouzin Keita li mu def na ko dindi. dindiwu ko ba sit yi reprendre ko. ma woowaat ma mhm. woowaat këcëb ne këcëb Ouzin Keita wax mu dindi vidéo bi parce que mm-hmm. ñu ngi koy partagé. Mm-hmm. instant bi mi ngi si un million partagé. un million vues. d' accord mais da nga jàpp ne Ndeye Gueye moo ko influencé loolu. non non parce que un Ndeye su defee loolu tooñ na ma parce que man fii laa taxaw fii lañ Dakar barki démb mu nee mbay dañ koo bett ak sax dafa waroon wax dindil na dindi mm-hmm. mais mu taxaw. Ouzin Keita wax loolu. mu dugal ko ma woo ko mu ne ma dina ko dindi ba tey comprendre nga ba affaire bi siiw nii man nag léegi man maa moom sama plainte suba damay plainte incha allah wala maa ñëw ci plainte bi kon da nga jàpp ni Ndeye Gueye dafa faj mer ci sa diggante ak moom ci Ouzin Keita loolu la Sénégalais yëpp gis mhm. loolu la Sénégalais yi xam nga man tooñ nañ tooñ nañ ma tooñ nañ ma man sama papa ibaadu la sama yaay ibaadu billaay ay ibaadu lañ barki rasulullaay ay ibaadu lañ sama papa sama suñu waa yëpp man rek maa si mel nii. ñëpp ay lañ. mbay mbay dañuy muuru mbay mbay mbay wax ji dafa mel ni daf la touché. non dafa tey damaa feebar hôpital laa fanaan parce que man xaw ma gàcce xaw ma rus xaw ma gàcce. Mm-hmm. man ñemewu ma gàcce. billaay hôpital laa fanaan. Mm-hmm. bi amee naka nga ko dundee ak sa famille. non ñu ne mbay da ko fekk góor. yëpp suñu waa kër la gis nga appel yëpp suñu waa kër la gis nga yëpp yu xonk xonk yëpp suñu waa kër la. Ouzin Keita lan moo tax mu tooñ biñ la wooyee luñ la wax lan moo tax ne ma man man man damay nekk góor ji góor bett ma loolu il faut loolu billaahi wallaahi taalaahi loolu doon daw bett nañ la ak góor su ne woon sax mbay góor jigéen nga ñu mën a comprendre mais dañ ne mbay bett nañ la ak góor mhm. ba sénégalais yëpp jot si fi mu nekk nii mhm. léegi lii justice baaxul parce que instant bi première ki mais Mbaye ndax gisoo ne diggante nit ak nit yow ak Ouzin Keita ndax jàppoo ne tamit jarul jarul jarul jarul ay ay plainte di si di si am. non non dama parce que ah yéen di yéen gis ngeen vidéo bi wax ci li mu ñaawee. Mhm. xam nga wax na si biir wax bi daf maa da ma maa soxoree ay voyage yi. waaw parce que ñu bari sax loolu lañ jàpp aussi. waaw nga demul. moo la moo la xa moo la a siisuloo. waaw moom moom sama yoon nekk si ak kii moom soxlawu ma comprendre nga. yaa ko man maa ko boole man man maa boole man maa boole ak Jamra su nekkee loolu la mer mais na ma woo ma li nga wax Jamra waroo ko woon wax. Mhm. ñu avancé comprendre nga wala mu yem si da nga maa soxoree sama passeport. Mhm. comprendre nga. Mhm. mais man soxoruma nañ dem kaay. man damay damaa am damaa signé benn label. xaar mosuma ko wax mais fii laa koy benn label Italie damaa war a dem Bruxelles dem dem ñoom sax ñoo ko estati xoolal. xoolal ñoom sax ñoo ko estati label baa ngi nii ñoom gis nga man damay def tournée Italie fi mu nekk nii mais wax ko kenn kii moo tax ma koy xaar. dégg nga fii di la fii turi ñii du du Torino ñoom la waaw ah mhm. Gofal production waaw xoolal Madiagne Mbengue dina ñëw déglu Khadim Tan dina ñëw Momo Dieng dina ñëw Mbaye ñëw dégg xam nga mais iso dem moo tax non non nga bëgg nga faj mer rek yàgg sama kii ngi nii lay yow yow yow xoolal yow yow man man man damaa faale lii xaaral sama kii kayit yaa ngi yëkkat yëpp pare nag gisoo ñu ngi nii association gisoo. waaw loolu visa ngi nii. waaw mhm. lépp ngi nii visa bi génn na lépp génn na xoolal yëpp génn na man damaa noppi rek comprendre nga. Mhm. am na am naa Canada tamit Canada. Mhm. man du sama yoon si den dem. kon soxor bi muy soxoree. waaw su naan ay mbay ku ma soxoree si dem bi ma dem man loolu waxu ko saw kasaw la en tout cas suba incha allah 11h xaw ma 3h naa dem police foire. déposé ma sama penalty te dina tub wax ji wala ñu defeere ko. mais penalty ba xam nañ ci boole Ndeye Gueye mi génne vidéo. non ah mais mais mais contre Ouzin Keita la dugal man Ndeye man man naa ko laaj ne ko lax yow dama laa ji lu bon wala dama laa wax lu bon wala fi mu nekk nii yàq ma moo tax tax a jóg. ah mm-hmm. ba ba ñiy yàq. ngay ànd ak ñoom di leen couvrir di ma yàq. Mhm. wax naa ko Ketchup nag woo naa ko ku xam ne Ketchup moom woo naa ko mais wax mun si ñoom dara wax woo na leen wax ba sonn saaga ne leen wax leen lu ne diggu dindiwuñu vidéo bi kon ba ñëpp reprendre vidéo bi. Mhm. man waa Thiès rek laa xam la laa. because because yaay seetaane mbay. nan la yaay doon doon jooy sama yaay dafa jooy ne ne mbay damay bàyyi quoi bilaay damay bàyyi sa yaay sa réaction yaay. non damay bàyyi billaahi sama yaay chaque jour mu ne ma mbay bàyyi kaay toog si kër gi ma ne ko non non sama papa chaque jour mu ne ma mbay li ngay dund neexu ma comprendre nga. chaque jour ah. chaque jour nga dégg mbay demal chaque jour mu dégg ñu dégg ne mbay erreur chaque jour erreur kii waxal na la lii kii waxal na lii kii waxal na lii ah. tey moowu mbay moowu mbay mbay dañ ko fekk góor. waaw moo boobu noonu. moo see xonte dafa mbay dañ koo féet ak góor. wax xam nga waaw xam nga fan yee passé kii Pambaay demoon jamono kii wax jooju bari woon na ba ñëpp doon ma tuumaal. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. ba pare léegi lii moom su waxee lii nii nii nii nii nii ñëpp lañ koy gëm. mais ñoom lan la ñu gis si yow da ngay ak ay góor jigéen. wala man xaw ma góor jigéen. xamaale wu ma góor jigéen du jox loxo góor jigéen góor jigéen su ma woowee ma ko jël fan yi rek am na ay góor jigéen yu ma doon woo. dama leen booleke. lu ñu doon doye. dañ ne dama laa nopp. comprendre nga ma xuloo ñoom booleke leen naroon leen yóbbu police mais Ouzin Keita taxaw fee naan ma góor jigéen la moom moom moo góor jigéen moom nga xamante ne fan yee passé dañ ko naroon génnee goxam mu dëkk. lu tax. barke Rasulaay fi mu dëkk dañ ko faa génnee Ouzin Keita. fi nii nii dañ ko faa génnee. ko waral non góor jigéen la. góor jigéen la moo tax ñu génne ñu génne ko ñu ñu Ouzin Keita day day day gisoo yi muy sol. Ouzin Keita góor jigéen la ñii Sénégal yëpp xam nañ ko bokk na si membre du góor jigéen moo tax madame Matar maam Matar su ko portal plainte ba mu ba su yeboo sénégalais yi ak maam maa ngi koy ñaan këmtalaay kattan na ko porte plainte na ko porte plainte man tamit dama koy porte plainte. mais wax jooju mu la wax nga xam ne réseaux sociaux lu fi xas ba dugg du génn. waaw est yaa ngi sóoraale ëllëg say njaboot bu ñu ñëwee. waaw waaw waaw waaw moo tax nag dama koy porte plainte moom na def vidéo du góor jigéen bettu ko si góor. kenn mësul koo bet si góor mu dem mu mu dem defaat vidéo partagé ko journaliste yi yëpp jëlaat ko ma ma bàyyi mais suba maa ngi koy déglu ba trois heures trois heures su ma gisul vidéo boobu comme naan nga trois heures damay dem porte sama plainte te incha allah naa leen woo ne leen bil naa plainte bi ñu moom la ñuy convoqué dina gis vidéo yi dina suba incha allah amatul dara sax dama koy porte plainte direct parce que li li ma wax lu ndaw. billaay mais mais mais Ndeye wax na day wax dañuy dindi vidéo yi. Ndeye Gueye moom moom ba tey dindee guñ ko vidéo bi si un million un million. un million vues. un million vues. même pas 24 heures. même pas 24 heures mu am un million vues kon xam nga ni ñoom ñoom lan moo tax mun ñoo bàyyi mbay. est-ce que nekkul sénégalais aussi tamit dañ la dañ la dañ la dañ la mere comme ni nga doon def nit ñi moo tax ñu yàkkamti dem di ko suivre. waaw moom moom man man man defuma dara man man naa bàyyi di man damay bàyyi. damay bàyyi billaahi damay bàyyi. sa yaay nee na la bàyyil nga ñëw. non sama yaay nee na sama yaay billaahi sama yaay chaque jour mu ne moom bàyyi bàyyil mbay bàyyil télé bi di nga si gis loo xamante ne bàyyil tele bi bàyyil réseaux sociaux yi ku kii soo yemal ma yemal si Kouthia rek bàyyil ku demal yemal si Kouthia rek ñun Kouthia rek baax na bàyyil ñi ngay def yëpp bàyyi leen. ñëpp bàyyi leen billaahi naa bàyyi ñëpp billaahi billaahi damay bàyyi sénégalais yi billaahi dama leen bàyyi. non bul bàyyi <laughs> dama leen di bàyyi ndeysaan métti na trop nag parce que xam nga gor su ne gor nga. tey dama feebar dama feebar te hôpital laa fanaan gor tamit ñu jàkkaarloo xam nga baatu baatu baatu góor jigéen dafa xaw a dafa xaw a dis ci sunu réew. tey nag la fait que nga jàkkaarloo góor yàlla ni ko yow dama laa bett góor te amoo ci benn preuve. ah loolu tamit wax dëgg yàlla kuñ ko waxoon tamit da lay metti surtout réseaux sociaux yi nga xam ne li fi ba dugg. li ma tiim ah, ñëpp. donc comme nee na moom suba day xëy dem déposer plainte. waaw ñun tamit ñu ngi xaar suivi bi. incha allah suba vingt kii trois heures pile incha allah fii la may fekk. brigade recherche euh, kii recherche wala foire. comprendre nga damay porte plainte incha allah sénégalais billaahi wallaahi talaahi ku may ñaan. ñëpp bàyyi seen dina ñam kaso sii mois wala wala mu def wala mu reculer. d' accord billaay walaay taalaay. d' accord billaahi suba dinañ ko parce que vidéo bi du daw mbay dañ kaa betti ak góor. Mm-hmm. mbay dañ kaa betti ak góor. Mm-hmm. la ma wax mbay dañ kaa bett waxul ne mbay góor jigéen la mais dañ ne mbay dañ laa bett ak góor dina génne vidéo yi. Mm-hmm. wala mu woo ne ko ku ko ne kan moo xam nga xam nga xam nga lu waa. xam nga ne lu waa day bañ loolu. waxal. waaw loolu ma guy waxal loolu yoon. est war que ko porte plainte. waaw mais man ci sama xalaat ci sama xalaat. Hmm. comme tamit sa frère la. amaana tamit dafa juum. te yéen aussi tamit ngeen bokk ay nit. parce que moom wax na yéen a bokk Sénégal yéen a bokk ay nit pour man dem dem yoon amu ci. pour man li ci gën a rafet mooy. xam nga moo tooñ xaar moo Ouzin Keita du moo tooñ moo ma tooñ. waaw pour man li gën a rafet mooy ngeen xool noo leen waxtaanee pas ay dem ay plainte di ci am wala ay dem yoon di ci am. parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar aussi du jël xam na li mu xool vocal bi moo ko vocal gis nga. tax nga ba Sénégal yëpp fu nekk nii ci feere euh, nañ vidéo bi te vidéo bi ngi si compte ba tey xool nañu tiitar li mu ñaawee bon ba tey bàcc na suba laay suba xaar bilaay walaay taalaay di nga di nga faale ma xam nga. d' accord liiru sax sama vocal. xam nga kon moo ma tooñ. su ngeen paree woo leen Ouzin Keita ngeen lu mu dindi filante bi. mais Mbaye. mbay leen ko ko. waaw mais Mbaye Mbaye Ouzin nekk nag bañ ko bañ. tey wax leen ko ko woo leen mu dindi vidéo bi léegi. waaw moo tax mu bàyyi si kontam. waaw Mbaye Mbaye Mbaye. Euh, xam naa foofu lay xam naa foofu lay foofu lay foofu laay foofu laay jeexale euh, Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar te Mbaye li ko cob wax laay dëggal yéen ñëpp ay frère ngeen yéen a bokk Sénégal amaana Ouzin dafa juum te Ouzin moom kenn ko topp ci ay wax. amaana nag nit matul te aussi ba mu koy wax amaana yaakaar woon wax ji dina àgg si fii yow tamit ba ngay génn tamit di ko attaqué yaakaar woon wax ji dina àgg fii kon tamit yéen ñëpp yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi waxtaanee leen ko rek yéen bokk seeni i nit aussi tamit euh, pour man jarul ay ay leneen ak yu kenn xamul donc mbay mënatul wax vraiment mu ngi jooy xam naa émission bi fii lañ koy yemale parce que métti na trop. di leen jox yeneen dëgg daje ci sunu yeneen émission fii ci People 221 jërë